asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki àddina bi rawatina mbokki réew mi noo ngi leen di nuyu nuyoob islaam di leen ziyaara bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm ci jamono june ak waxtu ne di ñaan sun borom itam defal leen jàmm ci jamono june ak waxtu ne ginnaaw bi itam jotaay bi daan nañ ko amal waaye mel na ni waxtu wi xat-xati jamono jàppoon nañu ba jamono jii lañuy ñuy a amaat jot jot pour mën fee ñëwaat àndaat ak yéen yéen mbokk yi àndaat ak yéen émission bi àndaat ak yéen jotaayu ñaareel bi lii nag jotaayu ñaareel bi ci liñ ci bëgg a ñëwee mooy xamal nit ñi seen borom ak seen borom mi nga xam ni moo lépp ak seen boroom mi nga xam ni moo moom lépp ak seen boroom mi nga xam ni moo amal lépp te bokkuñu moom ñun ñëpp mooy yàlla mooy ki nga xam ni fa kulluma siwaahu sunuhu lu dul jëmmam jëfam la naka nga koy ñaane mu may la ndax kat ku ko ñaan rek dana la may waaye naka nga koy ñaane noo koy ñaane fan nga koy ñaane ci jamono jan ndax wax dëgg yàlla lenn lu ne rek am na fuñ ko gën a taamoo am na ñu ko gën a taamoo te alquran ji mënees na ko cee ñaan ba mu may la loo bëgg lu ne mën ngaa ko mën nga koo ñaan ci alquran ndax al alquran maa faratna fil kitaabi min shay'in lu waay bëgg lu ne rek mën na ko ñaan ci alquran wa nunazzilu min wa nunazzilu min alquran maa huwa shifaa'un wa rahma alquran kat wax dëgg yàlla euh, leetar la boo xam ni suñ borom moo ko indi bi mu ko indee itam doon njariñ loo xam ni ku ci nekk rek mën nga koo jariñoo doon jariñ loo xam ne ku ci ne rek mën nga koo jariñoo wax dëgg yàlla euh, te li ci ëpp solo ba ëpp ci solo mooy nit ki buy ñaan boroomam na fexe ba nay taqoo laab nay taqoo laab wax dëgg yàlla dana ci am solo lool ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yanzilu rabbana tabaraka wa taala kullu laylatin ila samaa'i addunya xataa yabqa sulusul layli axir fa yaqulu man yad'uni fa astajibu lah man yasaluni fa uxti man yastaxfiruni faxfir la suñ borom subhaanahu wa taala day ñëw ba ci asamaani àddina ci ñetti xaaj yu guddi yi boo ko xaajoon ñetti xaaj xaaj bu mujj ba mu ni kat kan moo may ñaan ma may ko kan moo may laaj ma jox ko kan moo may jéggalu ma jéggal ko te loolu lu amaam solo la mbokk yi nit ki dafa war di taqoo di jéggalu boromam ndax ñun ñëpp ay jaam yu doyadi lañ yoo xam ni moom rek moo ñuy kàttanal moo ñuy mënal luñ man lépp ci coobareem lañ koy defee te mbokk yi itam danañ ñëw ci jamono ji ni mu yàqoo ak nit ñi ni ñuy jëflantee di warante di liggéeyante ak li ko waral ak mbokk yi naka lañu war a xamee li ñuy def euh, amut sens ak li ñuy def lim leen mën a jural ci lor ëllëg ndax kat alquran dafa waxoon ni man amila sayiatan fala yujza illa mislaha wa man amila saalihan min dakarin aw unsa wa huwa mumin fa ulaaka yadxuluuna aljanna wa yurzaquuna fiha bi gayri xisaab kon mbokk yi loolu bëgg nañ cee ñëw xamal doomu adama yi ni leen ku jëf jëf ju ñaaw day déefu la fay lu dul jëf-jëf ju ñaaw ku jëf-jëf ju ñaaw déefu la fay lu dul jëf ju ñaaw ja nga jëf ku jëf-jëf ju rafet man amila saalihan fali nafsi def na la fay jëf ju rafet waaye itam mbokk yi ku jëf-jëf ju rafet moo xam góor moo xam jigéen te muy ku gëm yàlla def na ko wërsëgale àjjana bis bu faatoo te kenn du ko xisaab ndax mbokk yi bu ñu xamoon ni àddina kat diir bu gàtt la li benn waykat waxoon ni min turaabin ala turaabin ila turaabin summa xisaabin fas sawaabin wa xiqaab dañoo jóge ci biir suuf wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sun borom ni nañ ko jàmm ñu ne ci kaw suuf nag war ko fee jaamu mu wax ni afa xasibtumu anama xalaqnaakum abathan andiwuñu fi ngir ñu fo sakkuñu ngir sàkkantu sàkkuñu ngir sàkkantu sàkkuñu ngir ñu fo itam kon day mel ni biñ jógee ci min turabin am na lum ñu wax waaye biñ nekkee ci xalaa turabin itam am na lu ñu wax waaye buñ jëmaatee ci ilaa turabin itam am na lum ñu ji am am na lum ñu dig lum ñu dig mbokk yi mooy wa wajadu maa amilu na buñ demaatee ci biir suuf nañ fa fekk suñ jëf jiñ jëfoon ci àdduna mu teew te mbokk yi àdduna lu bànneex bi rëy rëy diir bu gàtt la boo ko nattalee ak fañ jëm ëllëg ndax fii sax ak fi sax du ñemoo moo tax waykat bi ne woon ad dunya min turabin ala turabin ila turabin fas fawaabin wa xiqaab fas fawaabin wa xiqaab googu li mu jublu mooy mooy buñ lay régler régler say jëf moo xam dañ lay fay aw yiw moo xam dañ lay fay safaan ba kon mbokk yi loolu itam lu mat a mat a bàyyi xel la bokk na ci itam danañ ci dikk ngir nit ñi ñuy suturaalante ndax kat man araada an yastura bi sitrillah fala yakshif sitru ghayru ku namm suñ borom suturaal la daal bu lu ñu suturas kenn bu lu ñu kenn mbokk yi itam danañ ci ñëw ci jikko yu bon yi ngir nit ñi rafetal seen jikko yi ndox yonente bi suñ borom tagg na ko ci jikko muy jikko ju rafet jikko ju rafet jooju nag mbokk yi dafa am solo nit ki jéem koo am ndax xalaqal mawta wal xayaat liyabluwakumoo la ca teg ay yukumoo ahsanu amala la ca teg loolu la yàlla wax dama bind dee bind dund loolu nag day mel ni ci dégg nii dee dund rek amul sens mu ne ah am na sens damay xool ci yéen kan moo gën a rafet ci yéen jëf loolu nag du sorek li benn waykat waxoon ni doomu aadama yi kat nañ xam ni li fi des mooy afxaalul jamil jëf ju rafet rek a fi des mbokk yi dañoo war a xam ni kat li ëpp solo cib jaam mooy mu rafetal jikkoom ndax yonent bi saa saam daf ne woon enzamul ahmaari xuluxul xasan gën ngaa màggi jëf daal mooy jikko ju rafet jikko ju rafet jooju nag dafa am solo jaam bi di ci jéem a dugg di ci jéem a di ci jéem a rafet di ci jéem a nampatal bakkanam ak xolam ak xelam ngir làmboo jikko ju rafet li gën a bon ci jikko nag mooy nit ki bu meroog yow. Ah, fàtte lu baax li ne ci yow di ko weddi ak di wuññi say sekkar yim xam ci yow ak itam fu toog xamal leen ni leen kat kii du dara loolu nag asoo annaasi xuluxan la benn waay kat waxoon mooy li gën a bon ci jikko yi man isa xadiba minka ankara fobbalaka afsha sharruka nasa hashratika wa qala anka ma laysa fiika li gën a bon ci jikko yi daal mooy doomu adama bi nga xam ne bu la meree day weddi sang baax fu mu toog di wuññi say sekkari fu mu toog di fàtte njëkk li nga daa jëflanteek moom ci jamono ju nekk waxtu ne te fu mu toog rek xamal nit ñëpp ni leen kii kat du dara jërt respecté respecté boobu itam danañ ci dugg ngir nit ñi kat daanaka ci nit jikko yu soppikoo léegi du ma ni jamono moo soppiku ndax jikko yi dong moo soppiku inna allaha laa yughayyiru maa bi qawmin hatta yughayyiru maa bi anfusihim ni jikko yu soppikoo tax na nit ñi xaaratuñ lu dul ko nit ñi wormaal ba mu def njumte bañ xamal nit ñëpp ni leen kii kat jërta wormaal loolu itam danañ ci ñëw mbokk yi ndax amut solo nit ñi dañoo war di wormaalante koo gis ci moom ayib suturaal ko ko te lépp dëppoo ngërëmal yàlla moo tax li benn waykat waxoon ni bul tudd yow ayib yi nit am nga ayib xool yu kaneen te di ko wax doy na ayib kenn ku nekk say ayib na lay soxal moo gën di gëstu yu kaneen di ko béral kon mbokk yi itam danañ ci ñëw ngir nit ñi gën a rafetal seen jikko yi gën a mën a sàmm àq yi dox seen digganteeg seen mbokk jullit yi loolu itam day doon lu am am solo ndax euh, mbokk yi dañoo war a xam ni kat ñun ñëpp benn lañ li ànd asli kulli naas cosaanul bépp nit rek aadam aadam waxoo min tiini la moo cosaanul bépp nit rek mi ngi bàyyi ko ci aadam te aadam moomu ñu ngi ko bind ci banuk suuf te kon mbokk yi lépp solo ci ñun mooy jëf ju rafet te jëf ju rafet la ci jiitu mooy suturaalante bëggante fonkante te lépp dëppoo ngërëmal yàlla euh, danañ ñëw itam ci jamono ji ni ñuy liggéeyante di yàqante nga xam ni nit ki naka la mën a def ba mucc ci loolu inchaa allahu taala euh, wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bi alihi wa sahbihi wa xadimi